waaw maa tout tudd Pisco Ndiaye yore club bu ma tuddee sama tour club Pisco Ndiaye il nga a ni mi ngi ci quatrième année club bi nag li mu tënk bëri euh, c'est dans un premier temps dans un but social euh, après il y a un côté business hein. donc euh, c'est un club bu nga xamante ni day utal nit ñi ay liggéey club la bi nga y a un côté bu business mhm. donc c'est les deux phases qui font le mhm. club Pisco c'est-à-dire le y a Pisco UCP immobilier il y a Pisco Ndiaye mhm. euh, entre euh, création d'entreprise c'est-à-dire vous jógee tey à l'étranger de l'APEX à la création d'entreprise vous le club Pisco vous accompagne. Mhm. C'est très important pour les étrangers. Parce que vous en général le rire. Mhm. Bon, phase bi ëpp solo moom phase où dama de France ñëw gis ni nit ñu ils sont paumés ci n'ont pas emploi donc j'ai eu l'idée de de de de de voir comme je suis dans un milieu entre guillemets un peu plus euh, xam

en 10, 15, 20 minutes ou 30 minutes, nous allons voir ce concours gendarmerie, concours police. Euh, ce que je veux dire, c'est que je parce qu'il n'y a pas de sous-métier, les gars sont en train de faire des choses. Je veux dire que je suis en train de faire des choses pour que je Quelque chose de novatrice bo xamante c'est très important li ma gëna neex ci li ma def moy dama def ben système d'échange boo xamante ne euh, amuloon Sénégal moom moy damay ñëw gis euh, ku yore salon ma ko je te fais ta publicité yow nga jëlal ma nit ki jàngal ko liggéey jàngal ko ni ñuy defee euh, létt ah mm-hmm. jàngal ko coiffure ok mm-hmm dem ci tailleur bi ne ko dama lay defal publicité pendant six ou sept mois wala un an lu lu mu tolloon rek nga jangal ki métier. Mm-hmm. ainsi de suite ci euh, couturière bi ak lolu xam nga c'est un bon échange de c'est un échange de bons procédés. Mm-hmm. lolu dafa baax. Mm-hmm. te lolu réussir naa ko. ah damay def publicité bu bare donc nit ñi dañuy nangu lolu donc. Euh, mu nek club bu très très utile. Mm-hmm. vraiment je euh, suis mm-hmm. euh, vraiment je suis très très satisfait équipe donc si vous comprendre bu vous votre principal objectif moy ndaw c'est dans le secteur c'est dans le social ak képp ku bëgg si tout à fait parce que comme le j'ai fait 22 ans en France. Mm-hmm. et j'ai vu pas mal de choses ma créé une structure en France mm-hmm. j'ai vu que les euh, jeunes ils sont un peu désorientés mm-hmm. je les ai boostés dans ce sens euh, parce que comme je l'ai la il y a cadre social qui ne patron

Donc, Club y ait normal, c'est du social et on a créé plus de 100 et quelques emplois en 2019. C'est pas rien. C'est pas rien, vraiment. Et on compte doubler ça euh, en, 2020. Parce qu'il faut aider les jeunes. Et il ne faut, il faut pas attendre que sur l'État. Hein? Nous c'est comme les malheurs sank, ni ni. may ñëw gis la ne la yow kat jëlal ma kii tailleur nga jëlal ma kii ma defaral la publicité un loolu dafa neex amu fi amul Sénégal donc su ma ko indee ça les intéresse mu jël ko ma koy defal publicité tous les jours heure bu ko neex je suis sa merci heure bu ko neex ma defal ko publicité mais kee buy génn dana mën métier wam ça su ma amoon ñu koy def Nous bari Sénégal dana développé te ñu bàyyi wax ju bari ci liggéey voilà benen côté bi euh c'est le côté publicité bi euh, bu mooy c'est le côté business mm-hmm. hein donc il y a deux parties le club Pisco UCP et le club Pisco social bon lolu créé na lu ma la bëgg wax lu am importance mm-hmm. maintenant actuellement ni les gens sont tellement émus mm-hmm. que il ci photo après euh, mhm. y a les fans club Pisco y a les amis du club Pisco Ndiaye mais c'est c'est énorme le fans club c'est énorme et le fans club c'est des jeunes qui se retrouvent au euh, centre culturel mhm. français pour de l'alphabétisation ñoom ñoo dem ba créer fans club bi parce que échange boobu ma def daf leen neex trop mhm. les amis du club daf man daf dépassé na ma sax léegi donc ce qui fait que alhamdulilah la ñuy wax et puis nekk guerrier continuer xoolaat yeneen idée yi ñuy indi yoo xamante ne mën a dañu mën a développer vraiment mhm. euh, Sénégal parce que jeunes yi euh, euh, euh, tukki naa comme monsieur Fatian mhm. Europe la nekk ba léegi nii euh, les Sénégalais sont, sont, sont débrouillards. Mhm. ah ku ko xool rek yéen ñëpp ay jeunes ngeen je suis très fier de mhm. Bounama yéen ñëpp ay jeunes ngeen yéen a ngi xëy di liggéey loolu la ñuy ñaan mhm. ah vraiment euh, pour ngeen mën a jàll xool suñu bop ñun seen mag man jàll xol ëllëg ci biir lan ngeen mën def il faut toujours croire lan ngeen mën def pour ñeneen ñi parce que ma ci dara Bien sûr qu'après le, après le business, c'est après, mais le social d'abord. Voilà, c'est ça qui est important pour moi. Nous sommes ni depuis cinq ans, wax yaa ngi si tudd Nous avons une relation avec am le directeur général de Allo Dakar TV Bounama Fati. le président directeur général euh, mhm. Allo Dakar Bounama Fati c'est une relation qui date presque 20 ans une relation bu mënu ma ci wax parce que c'est émouvant parce que le club Pisco c'est Bounama Fati avec des quand je suis venu me présenter à son bureau mm. ne ko lii bëgg Bounama Fati c'est une très bonne idée mm. euh, je vais te donner tous les outils mm. tous les outils et tous les outils m'ont moo vraiment ça me touche euh, j'ai je frissonne même parce que ça me rappelle nos nos nos débuts vraiment ni ngay togué, ni ngay waxé, ni ngay défé, ni ngay défé na la nii ngay waxé né dem jël journaliste bële dem indi na la encouragé ma Bounama le président directeur général de Allo Dakar Euh, may wax ci je ko parce que euh, nga deux minutes rek mhm. euh, l'homme avant parce que nit lañu avant ñuy def li ah. mhm. ay Nous ne lañ pas ko mënul wax kon ngeen arrêter affaire bi quoi vraiment il faut c'est un homme entier ah nit la nit jeune la nit la du def barrière entre patron là ak sama il a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur le club Pisco Ndiaye day talk, jël outil yëpp def ci day toog fekk talk, ma defuma dara mu ma club c'est un homme de cœur c'est un homme bien donc euh, relation boobu la am ak et maa ngi ñaan ci yàlla une relation qui continue. continuer euh, après nous. Nous ñu ci d'accord le club nommer nommé Allo Dakar TV meilleur site de l'année Nous bëggoon que Allo Dakar euh, le meilleur site. Mhm. parce que Allo Dakar set ndax xam fait sept? Euh, Sénégal. Mhm. site. site te moom farul moom umma islamique la faral moom Sénégal la faral dañ doon wax sëñ Fallou mooy Sénégal ndax sëñ Fallou Touba la nekkoon waaye Sénégal lépp lépp la jëloon euh, Allo Dakar def comme Walfadjri Sidi Lamine Niass dem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm de la la la voix des sans voix kooku xëy na ñu bari xamuñu ko mais ba muy takk kaala Yaaser Arafat bi di xeex boobu xale bu tuuti laa ba Sidi Lamine di xeex la voix des opprimés laa tuddee Allo Dakar Allo Dakar ma nga Touba bu Touba xewle Njaasaan Kaolack euh, Tiwaawan fépp foo dem ci jullit yi ma nga fa foo dem ci catholique yi ma nga fa masalika jinaan rek lam fa def gis nañ ko foo dugg rek ma nga fa donc volet social bi volet tolloole bi volet njub bi mi ngi leen koy jàngal yéen ñiy liggéey ak moom euh, informer baax na mais informer juste et bien loolu tam bokk na li tax ma jël Allo Dakar parce que Allo Dakar fay dem jëli information indico ko commencé faut fa mu commencé yemale ko fa mu yem du ci yokk du ci wagn lolu c'est très important waaw ben bi nga xamante mom mo ci top ci ci ci Allo Dakar moom da fay dafa dafa social santé social buñ ko muuyu bëri na site bu nga xamante tay boko wowe ci information mu dem bokkoo woon ci information du dem mais bu naa ma day jël ay nitam déplacé leen yéen ñëpp yéen équipe bi yéen tam ngeen baax parce que seen xol boo ko àttanul woon kon dem ngeen seen xol àttan ko ngeen dem armeel ya xool ñiy fay liggéey seen modul liggéey mais loolu mosu fi am ñiy liggéey foofu ay nit lañu ñi nekk morgo ba di raxas war nañ leen xool seet na la ñuy liggéeyee donc euh, dafa mën gaañi site la boo xamante ni dafa yàgg nag parce que Allo Dakar léegi la gars yi di génne foo tourné gis sit Allo dakaar def na vingt ans yàgg fi donc moi je hommage jël ko et itam euh, yéen ñi xam ne yéenay liggéey Allo Dakar su ma nee ne club Pisco Ndiaye allu Dakar moo ko defar war na veille deux mille vingt maanaam du ko hommage mu nekk lu symbiose boo xamante ni euh, deux mille ñu dugg ci ci yeneen vibes yeneen yoo xamante ni dañ ci mën a enjoy nit ñi dañ ci mën a enjoy gis si seen bopp dimbale Sénégalais parce que euh, buñ dimbalantewul rek du baax bu naa ma Fati président allo Dakar euh, à votre nom à vous tous Hein? Et ñëpp ngeen témoigner ko avez fi avec ak man dama xaw ému Je vous remercie. président je vous remercie remercier bu ce que vous avez ci li nga club et puis ben parti moom vous annonce bi nga xamante ne mi que koy def ñi ñaa ngi c'est très important Allo Dakar annonce des milliers de personnes ñi ngi def ay annonce nit ñi di ko jënd. Mhm. ku amul doole jënd fa dal 1500 cinq 2000 neub deux mille nëbb këram kenn xamulu ko dara. Mhm. et puis vraiment. Mhm. Euh, comme ni ko Sidi Lamine doon Niass doon euh Allo Dakar dal ca kaw ca kanam. la voix des opprimés donc euh, merci beaucoup chers internautes nous ngi les di ñu fi euh, Pisco Ndiaye. Mhm. fondateur et président directeur général du club Pisco. donc euh, nous fi tey nak di directeur général mhm. de Allo Dakar. Mhm. nommé Allo Dakar meilleur site de l'année nous ngi les monsieur Pisco Ndiaye donc on vous donne rendez-vous. Benenion, Inch'Allah, c'est l'émission invité du jour merci